bokki jullit yi gannaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ngi bal xaq ñépp di balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jëggal suñu diggante ak moom te dox ci suñu diggante ak suñuy moroomi jàmm tomb bi ñu fas yéene fàttalante tey tomb la boo xam ne Euh, léeg-léeg da ciy baax rawatina nag su yenn xew-xew yi xewee nit ñi ne ko jàkk te ñi ci ëpp duñ ci jàngate dara yàlla mi ngi ñuy jàngal ci alquranul karim jaare ko ci làmmiñu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallama di wax moom fa mu nekk di wax ne moo xam lépp fu dara nekk lu mu ruq-ruqe xam na ne ma nga fa moo ko fa teg xam na lam fay def di lim ba agsi ci aw xobu gorob garab sax balaa wadd dana xam ne xob sàngam dana rot bi sàngam ci waxtu sàngam waaye loola war naa gën a xóot rek ci ne yàlla xamoon na ko waaye liñ ci jublu rek liñ ci mën a jàngate mooy amut lenn luy xew ba jàll te nit waru caa mën a jàngate dara wa indahu mafatihu lgaybi la yalamuha illa hu wa yalamu ma fi lbarri walbaxri wa ma tasqutu min waraqatin illa yalamuha wala xabatin fi dulumaati al ardi wala ratbin wala yaabisin illa fi kitaabin mubin tomb bi mooy suñu dëkkandoo ñoo xam ne eh, ba ñu wàccee ci kaw suuf ba fii mu ne ñoo dëkk te bokk yi dëkkandoo léeg-léeg mu demee ak yow noo xam ne ci ab sañ-sañ fu ko soob mën na la faa fekk fu ko soob mën na la faa fekk mën na laa fekk it nga mel nu nekk ndax ak ñëw sa kër ak ñëwam sa kër amul waxtu amul bis mën naa ñëw fekk la yeewoo ko mën naa ñëw fekk ngay dékki mën naa ñëw fekk ngay añ walla ngay dallu digg bëccëg wala ngay naan kafe ngoon wala ngay reer walla nga reer ba tëdd dëkkandoo moom amul benn waxtu mu dul ñëw sa kër bu mu fa mënta ñëw dëkkandoo yooyu nag euh, <coughs> di ci wala fu jotee ba tàmbali koo xam kiim dem këram gane ji ko fonk gu ko war a fonk tax na wutal na ko ay yu bari da ngay dégg ñu naan diw wàcc na ab liggéey bu dee waxin wu mujj wi la wu wi gën a mujj tuuti am ñu naan gaañu na am ñu naan noppalu na am ñu naan dellu na ci yàlla am ñu naan faatu na am ñu naan nelaw na kon tur yu bari yooyu ñu ko jox ci kum gane ji wane na ak diisam ak kattanuk suñu borom bu mu ciy jëfandikoo koo xam ne saa su nekk dañ koy gis waaye tàmm gi ñu ko tàmm day tax léeg-léeg dana bari luñ ci rëcc loo xam duñ ca mën a jàngate dara moo ne bokk yi dund gi ñu fi nekk di ko dund te lu mu yàgg-yàgg dëkkandoo jóge danañu ganes te li ma ciy bëgg a waxtaane bis bu accès danañ xam ne yàlla rek mooy buur yàlla mi ngi wax ci alxuraanul karim ne dund gi ñu dund fii ci kaw suuf du dund gu gu ñu fi dund rek bu ñu fi jógee jeex na déedéet waaye dafa am lu ñu fi indee te loola ku dem ci alxuraan da nga ci fekk ayaat yu bari yu koy leeral ba ab jullit war a xam ne dund adduna duy caaxaan lu seer la dara du ca neen ndax yàlla bu ëllëgee ca lay atte ab jaamam yàlla ñu ko yàlla jàpp ndalal bu ñu demee ci saar yi gën a yomb dina jege nga xam ne ku doonatub kaa ngit mën naa am mu àgg ca wala mu weesu ko tuuti saa su nekk ñu di ko jàng di ko weesu te fekk yàlla mi ngi cee wax ak nit tabaraka alladi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladi xalaqa almawta li liyabluwakum ayukum axsanu amala yàlla mi loxoom musta jóg ci moom lépp te du si mës jóg mukk mën na lu nekk ñu ne ko yàlla man mu ne mooy yàlla mi nga xam ne bi dara amagut moo fi nekkoon bi dara amee it muy ak dund dafay bokk ak kii dund di nekk waaye saa bu ko fi jëlee nag dana ko taaj ne ko ana sa dund ga loo fa nekkewoon dina talaate ña dëkk mu di leen nattal di seet ba xam kuy ëpple ña bokkoonum réew ña bokkoon genn kër ña bokkoon benn néeg ña bokkoon benn pas-pas am na fi nag suñu wax it ne bu leen jàpp ne mukk dañu leen indi fii rek ngeen di xëye ko wàcc rek nekk ci lu leen neex te yàlla du leen mas a teg fitna bu ëllëgee xool ba xam ki doon góorgóorlu ak ki yàccaaraloon alif laam miim axasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun wa laqad fatanna alladina min qablihim fala yaalamanna allahu alladina sadaqu wala yaalamanna alkaadibiin kon suñu dund fii ci kaw suuf dug neen dafa war a fees dell ak santaane suñu borom waaye am na feneen fi muy waxit di ñu wax ña weesu woon te jiitu woon ñu fi la taxoon yàlla indi woon leen si bañ ca taxawutoon nañ ca war a taxawe nu mujje ak ñoom ak lu tax mu indiwaat ñu seen gannaaw ñoom wa laqad ahlakna alquruuna min qablikum lamma zalamu wa jaa'athum rusuluhum bilbayinaati fa ma kaanu liyuminu kadalika najzi alqawma almujrimin summa jacalnakum xalaa'ifa fi lardi min baadihim linandura kayfa taamaluun waaye am na feneen fi mu waxet ne yow yonent bi aleyka salaatu wassalaam danañu ñëw laaj la bis penc bi ngay wax naan bis penc bis penc lii dana fa am laa dana fa am kañ la waaye nee na suñu la ko laajee nee laa loolu moom kii ko ki ngeen koy laaj ak ñi ko laaj ñoo ci yem képp waaye ana lu ngeen ko waajale na nga leen laaj loolu yasalunaka an ay ayana mursaha fi ma anta min dikraha ila rabbika muntaha innama anta mundiru man yaxshaha waaye am na feneen fu mu waxit foo xam ne tudd na fa baatu bu bis di ñëw te bis penc balaa agsi bunt ba ca jëm mooy dee yasaluunaka an ilsaati ayana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi laa yujalliha li waqtiha illa huwa saqulat fi lsamawati wal ard laa tatikum illa baxta kon dee moomu mbokk yi lañ fa séeré fàttalente tuuti te ñun liñ ci xam mooy ku dee dañ koy daati denc ñenn ñi ne suul ñenn ñi ne suturaal waaye bokk yi lu ci mën a am buntu la bu jëm ci bis bu tiis bis boo xam ne lu waaye masa def fii keroog la ko ñépp di xam doonte am na ñu ko xam am ñu ko xamutoon waaye bis la boo xam ne li nga xam ne kenn xamu ko woon yow dong yaa ko xamoo ne su boobaa danaan fàng ñépp gisaloon waaye nag léeg-léeg wut di dajale daf ñuy jiital ba sooy waxtaane lu ni mel day méttee métti ba far am na ñoo xam ne dañuy far absenté dutuñ fi nekk dutu leen ñoom moo ne bokk yi bu ñu seetee méttitu bàyyi ko fi ku ko bëgg xam na xool rek ci tukki àdduna yi rek koo xam ne daa nekk ci àll bi di fa liggéeyee def fay at ba ñibbisi ci réew mi def fi fan yañ fi war a def wala weer yañ fi war a def bay delluwaat ni muy yërëmtaloo buy dem ndax lam indi woon lépp jeex na daa war a dellu mu ci waat te xëm bu demee fu muy xëy ak kañ lay ñëwaat ndax dana dellu si waat ndax dana gisaat njaboot gi njaboot gi nga xam ne dañ koo tàmbali woon a nammantiku mu tàmbali leen a tàggu ñoom ñu absente xaat ndax xamuñu kañ lay ñëwaat lu tis la rongoñ yàgg naa génn ci ñuy tàggoo te jëmuñu fenn fu adduna rek réew sàngam la jëm rek lu mu sori sori wala mu jëm sax ci réew mi waaye boobu réew mi ko koogul nii bu ñu koy gunge ba ci buntu saxaar bi ñépp dañuy jooyoo bokk yi nag loolu mën naa ñëwaat wala nit dem fekk ko dellusiwaat ci jàmm ndax adduna la jëm waaye bokk yi néew na kuy faatoo koo xam ne day tàggoog waa këram naan naa ngi dem te wóor na ñëpp na du ñëwaat ndax ñu demoon kenn gisagu leen te kenn ñaan yàlla gisaat leen ndax ku leen gis danga leen a fekk moo tax sax bu ñu xëyee ñi ngi gunge ku faatu di ko jaale ji te duñ jàngat dara ci jullee gi ñu ko jullee ba yóbbu ko moom te kenn tuumaalut boppam ne moo ci war a toppaat moo ne dee moom di bunt bi jëm ca dispense moo fi jëlee ñu dëkk ñu doon dëkk ñépp te ñu ngi toog fi barab di xaar ñi fi mujj jóge yi lu mu pes pes ak lu metti metti dañuy fekk ñooñu rek di xaar mag dana ko def gone dana ko def sëriñ Suhaybu mbakk mi ngi bind ci ab leetar ab téeréem qurratul ayni fi tawdiixi wala fi tamyiisi bayna al faraidi wa sunnani naan mag day dee gone di dee ku dul mag du ndaw di dee waaye bokk yi buntu boobu di dee ña fa jaar ku fa ba dee ba dem ku fa dem da fa fekk ku joxe ay ndigal ba tàyyi ñu ko def da fa fekk ñi ba tàyyi ñii nangu ñaa bañ waaye yonent yi ñuy dëkk yépp ak woroom xam-xam yépp ña nga fa tëdd di xaar ñi gënoon a ñàkk ci kaw suuf ña nga fa toog di xaar waaye ñi gënoon a bari le ña nga fa toog di xaar waaye aw góor fa aku jigéen nii ñu baree fii rek ne fa gañ te ba faatu tàmbalee ak léegi nit ñi di di faatu euh, koo xam ne kii dañ koo gasal bam mel denc ko lii wér te wóor mooy jógatu ca bàmmeel ba moom ñu di ko teg bët muy a fa dikk tëraay bu yàgg boobu li mu li muy tegtale mooy ku ci nekk ci jàmm day gaawu ci moom lool ba bis penc di taxaw donte tëdd na fa ñetti junni at misaal ba mooy ku sonn dëgg dëgg dëgg ba ay nelaw not ko bu ne gam nelaw yu diis yanuy nelaw neex ganuy neex ba dara du yëngutu mën nga ko fab yóbbu fa la neex su yewoo fekk muy waxtu sedd li lay xamal ne na yi neexoon na du yëg ne mbalaat mi dañ na te day mel ni léegi la tëdd su ne nañ ko yee waxtu sàngam ndax da caa war a ànd ak aw nit dem barab it suñ ko nee jógal waaj jot na danaan léegi lañ tëdd di waaj ko te fekk nelaw na waxtu yàgg waaye bu dee koo xam ne mënta nelaw nag guddi gi day mel ne fukki at la ci moom yàlla na ci yàlla musal euh, yi loo xam ne tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn ay rongoñam ba nga mën a kol-kol suuf sam tiimoon di jooy mu doon suuf su ko xëpp loola mat naa tiit mooy xadis bi ma nett léegi koo xam ne nee na fekke na ab jataay bu yonent bi toog sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ci armeel yi ndax fi yonent bi dëkk fii ñu ko denc ci la dëkkoon moom armeel yi benn la dox bu gàtt la mu seen ñu fa nekk mu ne dem leen xool ba xam ñeer lu ñu fay def ñu ñëw ne ko daa mel dañuy gasal ko fi bàyyi ko mu daal di jóg gaa yi topp ko ba mu àggee bañ ca bañ dencee ba nga xam ne ñu ngay dañ ko fi dugalee bay teg bant ya xeetu dencin la di teg bant yi war a teg ban bu tooy yeneen bi na tekk ñun ñëpp ñu ne tekk ba mel ne tey ku picc daloon ko sa bopp sax du naaw ndax day defee ne bant bu taxaw la yeneen bi sallallahu alayhi wa taxaw ne ah ñëpp laay waxal de ñu ne tekk mu ne ñaan leen yàlla ma musal leen ci li aju ci pax mii ñuy gasal waa ji gannaaw bu ko gasalee ba noppi wax ko waxaat ko waxaat ko sallallahu alayhi wa sallam di tuur ay rongoñam ba fim mu ci doon bàq bu tooy xëpp boo xam ne man nga koo jeqi deqi ko kol ko muy suuf su tooy xëpp mu ne mbaa yéen ngi waajal bés bii mbaa yéen a bi moo tax Seydina Ousmane ni nga xam ne sëñ bu mag bi nee na yenente bi fanaan na guddig lëm di ko ñaanal yàlla lam bëgg mu am ko ndax lan euh, bu ëllëgee li bokk li gën a li mu gën a bëgg mooy yàlla ne ko demal sa nit ñee seet fa ña nga xam ne sawara yay na leen nga tinuma ca ma tin la lu tolloog juróom-ñaar fukki junniy nit sëñ sëñ mag bi nee na Seydina Usmaan moom mu am na dara jaam ci do dolli ko ca la koy yonent bi sallallahu alayhi wa a ñaanal la ba set guddi lëm goo xam ne Seydina Ousmane la ñaanal na Ousmane moom li muy am am jooju daraja li ko yonent bi fonk fonk radiyallahu anhu saa bu ñu masaanee waxtaanee faatu rek nga gis mu tàmbalee jooy waxut jo du jooy ci àjjana ju neex ju ñuy natt li nit ñeneen jooyee ndax yàkkamti caa dem waaye du jooy ci sawara wu metti ndax yërëm gëmi yërëm ña ca nar a dem bu ëllëgee waaye li koy jooyloo mooy bàmmeel yi nga xam ne balaa kenn dem aljana ak sawara jaar ca te faatu lay jaare ñu ne ko lu tax mu ne dégg na ci yonent bi mu ne ku faatu bañ denc ko ci bàmmeelam bàmmeel mooy nekk euh, examen bu jëkk bi fi ñu koy njëkk na su ko jàllee mbiram day gën di jag ba faw waaye su jëlul examen boobu nag mbiram day gën di metti ba ba bañ koy àtte yàlla ni ci yàlla musal moo tax waroom euh, xam yi ne yàlla di déggloo ki saa bu rombee ay armeel di dem ci ab rob ba dem bàmmeel ko dégg mooy tey film yi daw ci télé bi da gis koo xam ne dañ koy yoot ki koy yoot yor gànnaay te li li nga yàpp ne moom la moom lay yéene ci moom mooy bu ko gisee sàkkal ko pexe lu ko yéene yéene mucc dawal am na ko ni sa ginnaaw am na ko ni sa kanam du tax mu dégg la daa am siyaaj bu tax si bu dox seen diggante mu day woote naan yow nit yàlla bu la wor gane si ba nga fàtte ne man mii maay néegub lëndëm maay néegub tumurank maay néegub wéet maay néeg boo xam ne ay sax kese laa érefé sama kër moo tax yonent bi daan wax ne di leen ànd ci ay rob ndax mu di leen fàttali àllaaxira waaye di leen déglu it diw faatu na muy tàgge yi ba ngeen di fàttaliku faatu ndax bokk yi fukki fan yi ñu nekk am na xew-xew yu yéeme yu ci am yoo xam ne nit war naa xam ne dee moom la alxuraan waxoon ne dee mi ngeen di daw fu ngeen daw fu ngeen jëm wuti ko defe ne da ngeen ko da ngeen fa mucc ndax dana sori wala dana kawe dangeen ngeen di taseeg dee muy ñëw dajeeg yéen te comme dajeeg yéen dana leen faagaagal inna al mawta alladi tasirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum ana lu xew mooy mbokk yi fan yi am na kilifa goo xam ne ab jullit la rahmatullahi alayhi fii ci Sénégal euh, liggéey ba mu tànnoon di ca liggéey tam yi liggéey bu dagan ndax yàlla moo wax ci alquran ne walaw la dafau llahi nnaasa baaduhum bi baadin la fasadat il ard ak la hudimat sawaamiu wa biyau wa salawatun wa masajidu yudkaru fiha smullahi kathira kooku lam tànnoon di ko liggéeyee Euh, fa la ko dee fekk te bokk yi kooku ab liggéeyam mooy dañ ko daan dénk ay nit mu di leen wattu lu mat a bàyyi xel dañ ko daan dénk ay nit mu di leen aar di leen sàmm balaa kenn ma sa dem sa ca ñooña da dem feneen muy ay kilifaam ya ko koy wattuloo ñu may raw këyit nga soog ñëw jaar ci moom wala kam fa nekk loo mu door laa wan ka ngay seet ñu àppal la waxtu yow fay toog bokk yi liggéey bu am maanaa waaye kañ dénkoon nit ñi mu di wattu bis daa ñëw mu war a joxe laxasaay gañ ko joxoon jox ko keneen kooko wuutu ko fa wéyal wattu ga muy wattu ña fa nekkoon bokk yi foo xam ne boo fay dem aw këyit ngay wut ne damaa bëgg seeti diw ñu bind la aw kayit nga ñëw joxe ko ñene ca bunt ba dugal la ñooñu bu ñu amee aw xew wattu ko lu muy demee du kum neex àgg de ay kilifaam nekk fa ràññee nañ ca ab ministre ràññee ca ab généralu gendarmerie waaye bokk yi ginnaaw kooku ñu téeloo nit ñi di leen ko di leen ko wattuloo moo jafee gis la muy wattu jafee gis ka ko fa nag mooy gën a jafee gis fuuf ñoom ñépp la fa yam yàlla yemmaloo doo keroog ñu dajeendoo fa kooka ba muy wax ci biir waxtaanam am na ñu nekk ci bunt bi di seet kuy dugg kuy génn am na ñu ràng yor ay gànnaay yu wóor ngir lan kenn du ñëw li leen yàqal li ñuy def te àggaluñ waaye mbokk yi assiyaajul mania ak ay afraad mu dajjajuuna bi silaax téewul ba malakul mawti yu amee ndigal moom ba mu agsee xamutu miir xamut ay garde xamut yore fetal xamut protocole moom moom amoon soxla lañ ko ne rocc ruugi mu rocc ko roseet lam na la wax àggut moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla déggloo woon nee na bis penc buy ñëw bu jotee da gis ñu tàllal ab piis di ko dagg fekk kay jënd piis ba fay na ba noppi ba dara desul lu may daggal ko dee dikk kañ doon daggal du àggal ka ko doon daggal du àggal bokk yi mën lu moo di fa ak seen garde yooyu ñu teg ci buntu beeg fetal ya ba gisuñu ko loolu yoo mën a xam ñeneen woon ci biir jotaay ba garde yaa bi miir ba ak sécurité ba fa nekkoon téewul ku sa téléphone war a sonné sonné sa téléphone ba jaar ba agsi te garde du ko gis malakul mawtee ko raw fuuf keraloo soxla kooku rek waaye keneen kum soxla it donte kilifa la ko bala caa kenn ak jaar ci nit ñu bari luñ mat mat mooy luñ farlu farlu su agsee xamut guddi na xamut naaj na xamut mayu ko mayu mayu ma ma àggale déedéet moo tax suñu borom di wax ne euh, yow yonent bi qul rabbi auzu bika min hamazati shayatin wa auzu bika rabbi an yaxduruun an yaxduruun xatta ida jaa ahadahum almawtu qaala rabbi irjicuuni laalli amalu saalixan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qaa'iluha wa min waraihim barsaxun ila yawmi yub'athuun fa ida nufixa fi suuri fala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaaluun su fekkee faatu dikk na malaayika xamut kii doomi diw la xamut bàyyi diw la lii mel ni mbokk doon waxtaanee ci seet buñ doon yàpp xikma bu yéeme la te yàlla moo wax ci alquran ne yuuti al xikmata man yasha wa man yuuta al xikmata faqad uutiya xayran kasira wa ma yadakaru illa ulul albab kooku dafa wax ne jigéen ñetti bàkk rek la am wu muy bàkkoon diw moo ma jur wala diw maa ko jur wala diw moo ma yor waaye loolu nii noonu mu amee ci jigéen ci la ci góor la gën a jàll góor mi yore diwa ma jur maa jur diw maa yor diw waaye mbokk yi bis bu bis boobu agsi ak waxtu woowu dikkaloon suñu mbokk moomu radiyallahu rahmatullahi alayhi euh, malakul mawti xamul ku jur diw xamul ku jur diw maanaam kuñ jur ak ka ko jur ak kam yor ak ka ko yor xam xamewu leen bu ñëwee fekk leen ñu wéet ci barab bi kam ka ko yàlla yónni képp lay roj set yóbbu ko te bokk yi lu tax kenn mës sa porte plainte ne lu tax mu jële fi diw ak fii mu toll ci ak projet yi moo ko sañ ndax moo ko fi indi woon ndax sabab yi tax diw ñëw ñi koy sabab lu sax duñ ko ci jëg dara ndax diw sabab lu na ko ba tàyyi te amu ko moo tax dara nekku ca coobare suñu borom rek la yaxluqu ma yashaau yahabu liman yashaau inaatan wa yahabu liman yashaau shukura aw dukura aw yuzawijuhum dukuran wa inaatan wa yajcalu man yashaau aqima kon mbokk yi bis ngi noonu boo xam ne ak mawid ab rendez-vous boo xam ne bu jar di bàyyi xel la rawatina xew-xew yi ni mel bu amee ak beneen xew-xew boo xam ne kilifa diine gu mag la jëlaat yóbbu ko ci ay bis bi rek ñaar ñaar lay sax ñoo xam ne su fekkonte ne daa dugg ci kër ga jëm fa ñu teg ko bët bu ko fay jële it dana fa jële wàll ñu bari ne moom waaye mbokk yi buy ñëw doo kenn du dégg ay jéego yu tàpp ay tànk yu tàpp tàpp kenn du dégg riirum oto kenn du dégg riirum hélicoptère wala avion kenn xamut fi muy jaar yàlla nee na ci alxuraan euh, jaarale ko ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam secret la boo xam ne waxu ko kenn tegu ko ci loxob kenn moo ko yoral boppam ndax nit ñi ku ko tegoon ci loxoom ñu di ko joxante ba nëgëriñ si des na ko sàkk tax ndax am nañu bu ñu bëggee jële danañu laya laya ba kooku bàyyi ko fi moo tax benn borom xam-xam doon wax ne jéggi siraat sénégalais yi moo tax yàlla defar ndax su ci su defut siraat ñu door a dugg aljanna dana am ñu tasal loolu ni ñu jege frontière yi dugg aljanna te kenn du leen yëg te boo waxee mu waat wàcc na jaar jaar naa fa ma war a jaar waaye bokk yàlla ma wax ci alquran ci aaya boo xam ne wax nañ ko waxaat ko waaye lam ca mujjee mooy wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut nit fu muy dee xamu ko nu muy dee xamu ko waaye lu mu koy waajale mooy teg tànkam ci siraatal mustaqim ak di moytu tere suñu borom te fas yéene mu bañ koo séen fenn fu muy tare te teg tànkam ci yàlla nee na bi nee sëriñ bi nee na rek te yam sa kepp sañ yaakaar su boppam moo tax waykat bi way ne dee mooy ki nga xam ne kenn mënu koo daw baraw la cay firnde mooy nit ñi ñoo yàlla ko faatu yóbbu ko fekk dee na waaye loolu ñu ko yàlla yóbbu ko bu ñu ko doon siwaatee mbooloo mi ko yone woon yóbbu ko muy dénk yooyu ca la ñuy tegaat keneen balaa yàgg yóbbuwaat ko dañu yóbbu woon moroomam dee mooy ki nga xam ne ku mu fekk mu tabax ba mu kawee moo koy wàcce ci suuf ca suufa suuf sax moo tax wow xol waykat bi nee na weesu wut bis bu set mu gis ku dee wala mu dégg ko te du ca waaru mukk du ca waajal dara am na ko faatu woon fii yàgg na budul 83 di 84 sëñ Abdul Xaadir Mbàkke bi mu ñëwee di ko taxawee da ko laajte na mooy kan ci ñii bis bu bari ay jàngale la moo tax waykat bi ne huwa al mawtu ma minhu malaadun wa mahramun mata xatta an adihi an mata xatta daa an ashihi daaka yarkab nu amilu amaalan wa nabgi nitaajaha wa alla rada mimma nurad mimma nurajjihi aqrabu wa nabni alqusuura wa nabni alqusuura almushmajaraati fi lhawa wa fi cilmina annaa namuutu wa naxrab ila llahi nashku qalwatan fi qus fi qulubina wa fi kulli yawmin waacidu lmawti yantubu fa lillahi kam gaadin xabibin wa raajixin nusayyicuhu lilxabri waddamcu yaskubu nuxiilu calayhi turba xata kaannahu caduwun wa fi laxshaai naarun talahabu benn waykat feelu ko ci lay jeexale alqabru baabun wa kullun daaxiluhu fa layta shi'riya ba'da alqabri ma ddaaru addaaru daaru naimin in amilta bima yurdi lilaha wa in xaalafta fa nnaar yawma yawmay la ci alquran nag ba ca gën a garaaw gën caa metti mooy bis bi nit di ñaan yàlla mu def ko suuf bam mu bañ a ca dara yawma yanzuru almaru ma qaddamat yadaahu yàlla kese waaye alkaafir bokk na ci ku ñàkk jëfe santaane suñu boroom ndax gëmut yi muy digg dana ko teg nit naan yàlla néegu koo teg jaamam ah, yàlla bi ñuy rey yonent yépp yàllaa ngi fi woon te am na ci ñoo xam ne seen faatu ci loxoy nit ñi la jaar yàllaa ngi fi woon mu ni su wax yàlla néew fi woon ah kay waaye dara yekkantiwul dara xam na ne ñay rey yonent yi ak lañ leen di wax ci lu metti yàgg-yàgg dana leen jàpp sàcc boo xam ne du raw jënta yàq say nelaw moo tax Abu Darda daa faroon fab armeel ya def ko këram ñu di ko fa yët añ ak reer ak ndékki ñu ne ko waaw lu tax nit ñi ne fii ñii boo waxee duñ la wuyu soo jaaxlee mënoo wax ak ñoom lu tax nga fa ko def kër def ko wétal mu ne ah kay fii ma toog sama place la ndax fii kenn du fi jëw kenn li ñuy bari bari kenn du jëw sama morom dañ naan nemm te euh, it lu fi way andi fekk ko fi fu maandu la barab bii bu maandu la kenn du fi jëw kenn te it lu fi way andi fekk ko fi moo tax ma def ko sama grand place def leen samay dëkkandoo ba mu bañ koy fàttali ne lu mu yàgg-yàgg damay ñëw fekk si leen li ñuy jàng sax booy dugg ci armel nit ki bari nañu ko mokkal di ko wax te xamuñu lu muy teg wala bàyyiwoon ko asalaamaaleykum yaa diyaara xawmil muminin wa inna insha allah bikum la laaxiq maa ngi leen di ñaanal jàmm yéen ñii yéen ñi dëkk ci armeel yi eh, yéen a ma fi jiitu de may dox nii di kondam kondam yi dama ko dikk waaye nis tuuti balaa yàgg ma fekk leen fi loolu ñaata yoon na ko nit ñi wax te lu tax ñu bàyyi ci xel moo tax bu fi kilifa diine bàyyi koo ñépp war nañoo def ñaan waaye war nañoo tiit koo xam ne mbooloo mu bari jàppoon nañu ne lu dugg lu dugg ci noppam mu saafaraw ñu xëy benn bis doo dégg lu may naan taxawal nañ di ko jullee nam doon joxee ndigal ñu jullee ne ko jiitu woon ba noppi ne jàng leen nangam ñu ñaanal ko yàlla yàlla su booba yàlla rek a fa nekk su yàlla rek la ñuy nañ jàng nangam nañ jàng nangam yéene ko yool bi mooy nañ ko ñaanal jéggalu yàlla rek yàlla yàlla jéggal ñépp ñañ jiitu woon te teg ñu ci aw woo xam ne ñu it danañ am njéggalu suñu borom di jaale mbooleem ku mbokkam gaañu ci fan yi di ñaan yàlla mu teg loxo ci njaboot bi te àggale ay yéeneem ci seeni loxo yaxfirullahu lana wa lakum wa lisaa'iril muslimin